الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sëriñ bi tàmbalee ko ci wax ni yoon wu jub wii nag mus la dañ ñi ci gannaaw di ko jële ci ña leen jiitu woon ca jamono dëppi jamono yonente tabi saxaaba yi jële ko ci moom taabi wax ne jële ko ci sahaaba yi ñi leen topp jële ko ci ñoom noonu la continuer dox ba ci jamono yi junay di radiallahu anhu junay di nag moo mottali matuk ab doxam mu mel ni jamono boobu lañ daal di am nag ay yu ñu dëppoo ci leerale ko seeni seeni seeni yëg-yëg ak seeni mbax li ñu tuddee istra ci la ko arab te mooy waxin yoo xam dañ ci leeral lañ bëgg a leeral am ay symbole ay seen junj bopp seen roman si bopp ak it nag ay awraat yoo xamante ni dañ ko jagoo dañ koy tartib dañ koy toftale ci ay waxtu yuñ ko war a def ak daje nag ci ay sëriñ dajaloo ci ay kilifa yu bokk ci ñoom yoo xam ñu leen di yar ci seen i eh, ci mbooleem nag eh, goxi islam yi ñu waxe seen yëg-yëg nag eh, rëdd it yoonu tàggatu yi ñu jaar ngir tàggatu ci tasawuf ba am ci ab cër tëral it nag teggin ni war a dox ci diggante murid bi ak sëriñ bi koy tarbiya indi it melo yi sëriñu tarbiya bu mat sëriñ buñ bañ war a roy sëriñ bañ war a roy ci moom ñu andi ko mu war a doon ko ak xam xam yàlla te am mat doon jëmm joo xam dañ koy kasfu mbiri jamonoom ak nit ay nitam nit ñi mu jamonoonteel mu doon jëmm joo xam di jikkowoo jikko yi matuk jikko yi bi sallallahu alayhi wa ñu wax melokaan sëriñ boobu daal di wax ne saa bu ko taalibe bi gisee nag la war diggante moom mooy mu jox ko ab nosam te wàccandiku ci ay loxoom topp ko noonu nag la sëriñ sàmbale di feeñ kilifa yu mag yi murid dajale ci ñoom ñu sàkk lu baax daje ci ñoom ñu di leen jëriñ di leen yéege ba bañ ba bañ àgg ci xam yàlla mu jëlee ci ay xam-xam yu leer yoo xamante ne nett duñ ko seeni barke ak seeni jaxit it feeñ ci ñi taqo woon ak ñoom ñu leeral it ginnaaw bi teggin yi war a dox tàgg teggin yi nit war a tegginoo teggin dugg ci tarixa bi delloo ko ci cosaanam ci alquran ak sunna te loolu mooy seen mbir ci mbooleem seeni jëf ak seeni wax ak seeni xaar la ci jëkk mooy jaayante jaayante jaayante teggin jaayante nga fab sa loxo tekku ci loxo ki ngay jaayanteel jël kóllëre ci moom ñu di ko royee nag ci jaayante gi yoon saxaaba yi jaayante nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci bayaatu ridwaan ak it roye ko it ci ak it jubloo jëfe it aaya bi wàcc ci alquran wax ni in alladina yubayiunak innama yubayiuna allah yadullahi wa xaydihim mu ni wér na ci xibaar yi ni daal ñu fab seen loxo di ko teg ci loxol ki ñuy jaayanteel di ko teg ci loxol yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa wér na ci ci xibaar yi ni yonent bi dafa jaayanteel Ousmane teg benn loxo bi ca ba ca des wér na ci xibaar yi ni yonent bi salamatunu la akwa dafa jaay jaayante ba noppi mu mu ni ko jaayante waatal mu def ko mu defaat ko ba muy ay yoon te loolu ku ne xam na ni mbóoti nekk ci biir biir la loxo ba muy teg ci loxoom di jaayante mbóot la ni kon but loolu ku ne xam na ni e, yonente bi du wax ay neen du du jékki-jékki di ko defee ci ay ay neen ni ku ne xam ne saxaab bi yu ba it du naafeq ci ak jaayanteem bu jëkk ba tax muy aaj jële ku bamtu kon am na mboot mu nekk ci dolli nag e, yaatuk e, réewu islaam yi ak néewug sëriñ soos yi ci gox yi buñ leen nattalee ci njës dañuy néew seeni sëriñ ràññiku lool ràññiku ràññiku ci yeneen sëriñ si ci des nga xam dañuy jàngale ak ci bokk na ci ñu jëkk a siiw ci kuréel boobu yi ci tarbiya ci himma ci ñooñ euh, cinquième siècle muy Cheikh Abdou Khadir Jilaani Abdou Khadir Jilaani ci jëkk feeñ ci kuréelu tasawuf di tarbiya ci itte ci la bokk wala bokk ci moom lañ jëkk xam mu jóge fi mu ak Cheikh Ahmad Rafaa yi ca ñu feeñ ci mashriq ca penku ci sow bi Cheikh Abul Hasan Achadali ak Abu Madiana ci ñi fi jëkk feeñ lañ bokk loolu moo wéy di dox ba ci mujjug douzième siècle pour que l'on ak ñaar الطريقة التيجانية فين تلوخر أبو العباس الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه في المغرب الأقصى سو جنت بغن سوري قادرية طريقة قادرية فين تلوخر الشيخ سيد موسى الكنتي ممتم في سهرة في سهرة بلدكم السهرة الكبرى نيوم نيار نيو بك بين خرن بن فين في نيوم نيار نيو نيو نك ديلي في نيوم نيار نيو نك أكتين طالبين سيدا يوني واي تربيه تسارو تي بير غو سودان تي موي موجوك موي في تي سو جانت اك تي اسارو كو تي ساران نون لاني ديمي با واي مون نك واي نك كومي شانتي يال موم رضي الله عنه دا فا درو يور تاريخ بوبام جيلي كو تي يونس بي صلى الله عليه وسلم تي جاري كو تي كشف والالهام amit wérdu boppam wu ko wu mu féeti woo xam daf ko jegoo bu dee ku mel ni Cheikh Sidi Mokhtar Kounti moom mu wax ni moom moom itam euh, mbóo si tarbiya tarbiya ci yoonu xaadir ci moom ci ci moom la teere si ci moom la sosi mu ni moom moom nag donte eggoon ni ci martaba bu war a jël ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam it masta jag euh, wéetal wéetoo jagoo wér boppam jamono bu ne rek weddu Cheikh Abdou Khadre Jilani daan joxe ay jox ay taalibam di ko jox ay muritam waaye nag ci isnu xaas la ci am ndigal lu lu lu lu lu ndigal lum jagoo lu jóge ci yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam barke feeñ lool ci ñoom ñaar ñooñu feeñit ci ñi leen topp mu wéy nag di dox ñuy dox noonu ci yoon wu jub ñoom turuq soofe yuy jote feeñ ba ci mujjug euh, mm, fukkeelu xarnu ak ñett dugg ci njëlbeenug euh, fukkeelu xarnu ak ñeent leer yi tàmbalee dal du si géej tasawuf tàmbale le tekkeeral waaye li wa drapeau islamique tàmbali di jaayu ndijoor ak càmmooñ mënta dal amut benn kàttan gu leer gu ko mën a téye gum gum gum gum gum sukkandiku ndax yàqu-yàqu yu bari e, ak bidaa feeñ ak xëccoo guñ doon xëccoo ak kilifeef ak àdduna li daal moo tax dem nañ ba daanaka diine islamique am jafe-jafe waaye mu tollee foofu rek la suñu borom dogal dogalal islam nag ku ñëw yëngalaat leer gi mu gën a jolliwaat mu jël drapeau bi gësam ko daldi di tasaare mbooloom kéefar ak kàccoore daal di pënd bi muuroon kanam gu islaam it mu mu mu mu pomp ko ba mu set wecc kooku mooy kan Cheikhul Xadim radiallahu anhu mu doon jëmm joo xam ni fii ci soowu jant bi turam wooyu muy Cheikhul Xadim dàkkantal oo kenn du ko ko xëccoo ak moom mu delloo si nag tarbiye ci béréb ba mu dëkkoon daal di taxawalaat ponk yi ba mu leer teg ko ci kaw keno yi mu teg ko ci kaw fondation bu leer mu fees aw turam nag fees dell àdduna mu liggéey liggéey bu jëm ëllëg ba am ci yool bu bu mag ak jëf ju ñu gërëm mujj nag buñ ne sëriñ bu mag bi daal fii ci réew yii ci ñi mu bokkal buñ ne sëriñ mag bi xel yépp ci moom lay dem menn xel du xëccoo kenn du xëccoo ci biir xel yi kenn du xëccoo moom menn xel du xëccoo ak moom tur woowu muy buñ ne sëriñ bu mag bi daal xel yépp ci Seexul Xaadim la dem rabbi muy mbir moo xam nag moo gëlëm loo boroom boroom xalaat yi ñu bokkul ci diine ji boroom xel yi ak xam boroom xam-xam yi ñu bokk moom diine it di yoqamtiku di xool jagle yooyu lan moo ko may ak euh, lan moo ko may mu tiim képp kum jamonoonteel tiim it ña ko jiitu lan moo ko may loolu sëriñ bi si wax nag xemeem xemeem ma tontu càkkuteeful koo xam ni mënumaa wu juyóog moom mu ma wuteeg moom moo ma andi ci moo ma joo ci ma tëral jumla yi may tëral bëgg waxtaane lenn ci li sëriñ bi ràññikoo ambule euh, ca ca ba ci ak tànkam li mu ci jikko yu kawe ak itte ju kawe ak euh, gis-gis bu jub ak xalaat bu xóot ak nammeel gu dëgër gu mel ni weñ ak xeeb lépp lu mu wuutee lu lu li muy dund te xam ne di rek dëgg xeeb gi muy xeeb lépp lépp lu loolu mu doon mbir yu kawe doon jikko yu taaru yoo xam ni xoolu wéy ñaari wéy juróom la ci jëkka moom ak mbokki bopp ñi ko jege dool ca bu ko xam ak képp sax nga dajeeg moom képp rek ci ñu ko mag jiitu woon ko jiitu woon ko ci kilifteefu diine ak àdduna ku ko gis rek sa xol wëlbatiku toppi ko loolu la siiwee depuis mu doone tu tànk nekk ci kanamu way juram kenn mës sa jaxasoo ak moom te du dolliku nga ak doyloo si diggante ak moom te sax dootoo mën a sa bopp ci wama topp ci ginnaaw loolu daal ci la ci la ci la doxe ak tu tànkam ci la mag ay àndandoo mit ànd moom ci noonu kenn mës sa jaxasoo moom ba mu feeñee ba ba ko mujj a te du te du te du jaaxal na la ku mas jaaxal na la ngir li feeñ ci moom loolu nag yàlla yàlla xam waaye xañ na eh, li feeñ ci dëgguk li muy dund ak jafandu gu dëgër gu mu jafandu ci ak ngëmam ak eh, yanu gu muy yanu bépp coono ngir wàllu di doo xam dine dine ko dine ko waral ak nag waxtu yépp mu jeexal ko ci sax ci ak njub ci diggante warteef yi ak yi ñu sopp aku dëddoom lépp lu dul lii mu nekk dëddu dëggu koo xam ne sax dañ ko koo moñaale mel daal di jëmm joo xam dañ ko bind mu doon kiimaan ci xaqaaiqi islaam waaye doon it kiimaan ci makaarimul axlaaq kon bu bind bi ñuy jëm ci kanam Euh, li ñuy indi nag euh, xamle kan mooy sëriñ bi ak askanam euh, ci dësub juróom-ñetteel bi incha allah di ñaan suñu borom defal na ak dégg defal na ak topp defal na di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jëriñu di wa rahmatullah